salaamu wa rahmatullah mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci benn dossier bu particulier dossier bu doy waar dafa am benn ndaw boo xam ne mu ngi tudd Serigne Fallou Dia euh, ku bëri tur la sax d'ailleurs ndax am na foo xam ne Ibrahima Aydara lay tudd am na foo xam ne Cheikh lay tudd euh, mu nekk ndaw sénégalais bu juddoo ci atum 1999 foofu ca Touba. mu nekkoon benn ndaw boo xam ne dafoon da liggéey ci mbirum euh, multiservice yoon temps yi teg ko loxo ndax escroquerie ndax lay nit ñi nag moom mi di euh, sëriñ Fallou Dia dafa ubbi benn sit mu tuddee ko euh, détective privé Sénégal mu bàyyi foo benn contact lu mel ni ab mel mu ci wut ay clients clients yi nag lu ëpp ci ñoom ay sénégalais lañu ñii ñoo ngi basé wu dans la diaspora européenne américaine et particulièrement africaine euh, en tout cas ki Serigne Fallou moomu euh, Dia euh, dafa déclaré boppam comme détective privé euh, mu ci am ay clients yu bare bari bari bari bari di ñu bëri ci ñoom da leen di laajte ay somme yu takkoo takku lu mel ni quatre cent mille trois cent mille cinq cent mille sept cent mille yenn yi ci ñoom mais du fa yem euh, dafa am benn plan bu rafet boo xam ne kooku di Serigne Fallou Dia da koy teg daanaka boo muusul dina jafe lool yow nga bancee danga nga bancee daanu euh, bu ñëwee bu woowee client bu ko woowee da lay laajte service euh, service yooyu mën na nekk deux cent mille mën na nekk trois cent mille ñii sept cent mille ak yooyu mais du fa dafay wax client yi man de mën naa la toppal sa dossier toppal la suivre la par exemple sa jëkkër wala ki nga xam ne bëgg nga am ay information ci moom mais da may fay donc bu ñu ko fayee ba pare du fa yem dafay daal di laajte euh, ay téléphone portable parce que moom dafa nee dafa am ay logiciel yoo xam ne da koy teg installé ci téléphone yi mais du noonu n'importe quel type de téléphone la plupart du temps ay iPhone 12 iPhone 13 lay laaj ci clients yi wala sax ay techno yu sophistiqué dernière génération dernier cri moom lay jëndloo client bi nee na boo jëndee téléphone yooyu ba pare dafay installer benn logiciel boo xam ne dafay permettre yow mii moom mii di détective privé bi muy dégglu en tout cas appel téléphonique te mën a suivre euh, yow nit bi nga xam ne bëgg nga ko suivre bëgg nga ko topp bëgg nga xam ci lal la neex bëgg nga xam ndax da lay trompé wala trompé la bëgg nga xam ndax nit ku ku ku déggu la ci li mu la won am déet léegi su ko defee clients yi la majeure partie entre temps ci ñoom dañuy nangoo jënd téléphone yi ñii souvent la plupart dañuy jënd ay ñaari téléphone jox ko kooku di Serigne Fallou Dia mais bu ñu xasee fay seen téléphone seen xaalis bu ñu demee ba fay joxe téléphone yi. kii di Serigne Fallou dafay daal di daw daal di naaxsaay daal di disparaître ba si jaww ji kenn dootu ko gisati pour ñenn ñi ñeneen ñi souvent dalay menacer di la naan waaw boo mottalewul xaalis bi nga ma yoreel dama am ay video yu compromettantes yi nga xam ne jot naa ko ci say téléphone dinaa ko wane donc la major partie d'entre eux dañuy ragal duñ ko nangoo topp ba benn bis ab ndaw benn soxna porte plainte foofu ci direction de la cybercriminalité bu ñu porté plainte boobu. Euh, ci ay fan yi néew tamit beneen jigéen demaat porté waat la même plainte contre la même personne qui procède au mêmes pratique ba direction de la cybercriminalité ubbi enquête ñu daal di déglu euh, enquête boo xam ne daanaka weesu na ab diir parce que kooku di Serigne Fallou Dia dafa am ay méthodes yoo xam ne euh, daanaka xawoon na jafe la direction de la cybercriminalité pour ñu teg ko loxo ndax comme multiservice la yoroon da doon utiliser. Euh, carte d'identité yi clients yi nga xam ne dañ foo doon fàtte seen carte d'identité yi mel noonu pour muy mën a récupérer xaalis boobu nga xam ne ay nit de bonne fois ñëwoon nañ ci moom pour ñu pour solliciter ay service am donc noonu la doon def di utiliser carte jàmbur yi di ci récupérer ak xaalis boo xam ne daan nañ ko yónnee Sénégal ñi ñu ko doon yónnee lu mel ni ay Nigéria ay Congo ay France États-Unis ak yu mel noonu ci tuuru jàmbur yi donc la doon récupérer xaalis bi looloo taxoon mu xawoon na jafe tuuti suñu policiers yi enquêteurs yi pour ñu mën ko teg loxo mais comme xam nañ ne ñun Sénégal fii suñuy force de l'ordre suñuy policiers suñuy enquêteurs suñu gendarmerie dañoo aay lool ci enquête euh, pour ñu mën a en tout cas leeral mbir yi mel noonu mujjee teg loxo vendredi bi passé ba jàpp nañ ko kon ñu àndil leen xibaar bu mel nii parce que yii quand même xamuñu woon ne am nañu mel noonu d'ailleurs sax boo leen demee ci site boobu nga xam ne moom moo ko ubbi woon foofu la doon jaare pour am ay clients direction bi di cybercriminalité Euh, daal di nañ fa jàllale benn information pour képp koo xam ne kooku di Serigne Fallou Dia doon wuyoo ay yeneen tour ay dara Cheikh ay dara yi kenn xamul euh, ngeen mën a en tout cas feeñal seen bopp ñu mën a en tout cas gonfler dossier boobu pour kooku ñu daan ko daan ñu koy dax moom ci boppam bu ñu ko jàppee weddiwul tuuma yi nga xam ne ñi porté woon plainte ñoom ñoo moom la ñu ko moom la ko reproché woon nangu na lépp nee na d'ailleurs sax bu mu commencé liggéey ba léegi lekk na ci lu tollu ay ñeenti millions ak tege ak euh, bon voilà expliqué na en tout cas policier yëpp moom lan moo ko dugaloon ci mbir moom parce que nee na moom dafa mës bëgg loolu di euh, en tout cas liggéey bii di détective privé kon ñu wax leen ngeen moytu boo leen jotee seen carte d'identité mu réer dem leen def déclaration parce que saay-saay yi mel nii Serigne Fallou Dia moomu euh, ci yooyu la ñu mën a utiliser pour mën a en tout cas def seen ñaay taf yooyu ñoo ngi leen di jaajëfal di leen dig daje ba beneen yoon ak beneen fee bu mel nii jërë ngeen jëf